nañu jigéenu Sénégal ni ñu sonnee gis nañu jibéeru Kébémer ni ñu sonnee ku dugg ci marché bi wala nga romb ci yoon yi saax am na fu ñu romb jigéen ñaa ngi ñu yëkkati ay mbuusu gerte kemb ne ñu lii rek lañu am te mënatu ci am sax lu ñu suturale suñu njaboot yërmande googu ñu am ci Sénégal ak ci jigéen ñi moo tax ñu ne su ngeen ñu wóoloo ba dénkuñu li ñuy wax congé maternité mooy jigéen bu demee ba yàlla may ko mu wasin nee nañ congé maternité boobu suñu waa ñetti weer la ko defoon mais ñun nee nañ dinañ ko yóbbu ba mu doon juróom benn weer bu ngeen ñu wóoloo ba dénk lii nga xam ne gis nañ ko mu topp jigéen ñi sonal leen mooy li tubaab naan violence faite aux femmes mooy jaay doole gi ñuy jaay doole yenn jigéen ñi bis bu nekk nga dégg mbir yu métti ñu ne dóor nañu wala gaañ nañu wala rey nañu loolu dina jóge Sénégal parce que dinañu teg ay loi yu métti métti métti te dañ ko appliqué ba kenn ku ne soo jàkkaarloog jigéen xam ni sa genn wàll nga nekkee tey nag sama mbokk jigéen ñi laa jagleel sama wax jii parce que li ñuy wax nii dafa war a nekk temps d'antenne du waa Kébémer rek laay waxal donte jigéen ñi bëri nañ fi lool wala dafa mel ni sax ñoo fi ëpp may leen gàcce gaalaama yéen jigéen ñi yéenay suñuy yaay yéenay suñuy soxna yéenay suñu doom jigéen dina am même droit yi góor rawatina ci lépp lu jëm ci suuf si ñu ne dinañ def réforme boo xam ne ni góor amee sañsañ sañ ci suuf jigéen dina ko amee sañ-sañ ci suuf bu ñu bàyyee mbirum courant bi waa jogo nee nañ ma ñoom ndox mii lañuy naan ndox bi moom ki ko yàgg naan hôpital rek ngay mujj ndox mii nag la Macky Sall di jox waa jogo ci jamono joo xam ne ma ngay jël ay milliards yi milliards di ko def ay autorail ak ay immeuble mënul jox waa jogo courant mun leen jox ndox mun leen jox collège wala lycée mënul jox ndaw Diogo bi liggéey est-ce que ku jiite réew ci anam gu mel noonu mérité na ngeen jox ko beneen mandat lépp luy alalu réew mi moo xam jën gi la moo xam suufu dëkk bi nga xam ne ñu ngi koy dagg ay hectares yi hectares di ko jox waa bitim réew moo xam suñuy ressource naturelle te zircon bi ak petrol ak gaz ak or ak phosphate bokk ci yooyu yëpp nee nañu ndax jaaduwul ñu ne senegal yooyu yëpp 10 pour cent rek la ci am moo tax ñu ne fii jogo nga xam ne exemple na ci boo ñëwee jogo gis nii mu mel boo demee Kédougou walla fi ñuy wax Sabodala ñoom ñoo gën a sonnati te suuf soos yëpp ñu ngi fay jëlee xaalis bu dul jeex muy génn réew mi dama leen bëgg wax ni bu ngeen ñu wóoloo ba dénkuñu alal gi nekk fii jogo doomu jogo dina ci gis boppam bu baax waaye doomu senegal yëpp dinañ ci gis seen bopp bu baax nañ koy defee nag mooy dinañu renégocier contrat yi ñaareel bi nag yéen ñëpp xam ngeen ni dañoo nekk fii ci li ñuy wax laa zone des Niayes zone des Niayes potentiel bi mu am kenn xamul nu mu toll zone des Niayes rek mënoon na régler problème mu dundu senegal gi rawatina nag ci li jëm ci maraîchage waaye bu ñu ñëwee ba fii ci zone des Niayes ñu ne nit ñi bay nañ ba pare def nañ soble def nañ pomme def nañu salaat def nañ leneen ak leneen ñu ne loolu mi ngi fii di làmb bañ koy tuur parce que amuñu kuñ ko jaay loolu musiba la senegal te ñun bu ngeen ñu denkee loolu lañ fas yéene def moo waroon a tëj suñuy frontière wala mu def ay taxes yoo xam ne lañuy bay fii ci biir réew mi keneen ku ko bëgg a jéggaani indi ko ci réew mi li ñuy jaay li ñuy bay ci biir réew mi mooy gën a tuuti njëg ba nga xam ne li tubaab di wax compétitivité ñi ne fii dinañu jaay ba jeexal keneen doog a mën a génne bitim réew ñëw jaay suñu programme nee nañ su ngeen ñu wóoloo ba dénk ñu réew mi dootuñu nangu accord de ay bateau jóge fële ay bateau usine yor ay mbaal yoo xam ne du mbaal conventionnel roñ suñu génn gi yëpp daal di génne loolu dootuñu ko nangu accord de pêche yu bon yi ñuy signé fii Mauritanie du ko signé mukk loolu suñu nguur yi rek ñoo koy siñe kon ñun dañoo bëgg suñuy nappkat mën a am accès ci ressource bi mooy ci jën gi buñ ko nappee andi lañuy ñuy jaay pour suñu consommation ci kër yi nit ñi jël ko la ca des nag am nañu yéene côte bi yëpp Cap Skirring ba Guet Ndar fu nekk ñu def ay usine de transformation jën gi ñu koy wàccee fii suñu réew transformé ko fii dugal ko ci ay pot fii lañ ca soxla ñu jël ko la ca des ñu génne ko ci réew mi boroom xam-xam yi nee nañ dafa am lu ñu tuddee réchauffement climatique buñ ci jëlul ay matuwaay li nekk ci ci côte bi yëpp boo moytul ndox mi dina ko nangu ndànk-ndànk te commencé na soo demee Guet Ndar ndox maa ngi nangu lépp ñu jël nit ñi yóbbu leen ci benn quartier bu ñu tuddee xaar yàlla ne leen nag toog leen fii xaar fi yàlla ay bâche sañ leen defal ak ay tànt ñun nag am nañ ci gis-gis mooy am nañu benn programme environnemental bu am solo li ñuy wax littoral bi yëpp am nañu yéene jël fa ay matuwaay yoo xam ne def fa ay dig waaye ci biir géej gi am na ay technologie yu bëgg a utiliser ba ndox mi dañuy wàññi dooleem buy egsi ci côte bi dootul am yenn doole yi ñoo ngi leen di gërëm ñoo ngi leen di sant asalaamualeykum wa rahmatullah